maa ngi tudd Ousmane Ka maa ngi dëkk fii ci Sinthiou lii lii coow bi mooy boo gisee génne nag yi ñëpp ñëpp ñëw mooy Sinthiou Kéba depuis suñu maamanti maam ba léegi nag yaa ngi fi 15 villages moo polarisé Sinthiou Kéba maanaam 15 villages moo sekk Sinthiou Kéba village bu nekk am na lu mu dee dee am na junni nag lu mu dee dee am na junni nag forêt boobu nag. le maire de Fandène bëgg a jël lu si ko jaay ko def ci poosam waaw le maire de Fandène moo jël bëgg a jël lu ko jaay ko ñu def seen poos ñun nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg en 2019 2019 la ñu profité avec l' absence des éleveurs xam bu bu ngeen fàttali ko nawet 2019 mu ngi taw dans la deuxième quinzaine du mois de août fekk sàmm yëpp yëpp dakk nag yi dem côté Joal di rawale seen nag ñu produit loolu ñëw dakk fii dagg fii 40 hectares lotissé ko ten bi fi nekkoon ñu suul ko dëgg bi nga xam ne sunu kii jiboo léegi ka yàlla ko yàlla yërëm moo ko gasoon fii dégg bi ñu suul dégg bi fi nag yi du fi doon naan ñu suul suul teen bi ñu suul dégg bi ñun nag sës nañu sës nañu sàmm du taal pëna du du vandaliser ay Auchan samma du taj du toj station mais ses nañ nag te saa bu ñu fippoo Sénégal yëpp dañu xam ne fipp fipp nañ sonn nañ sonn nañ sonn nañ maa ngi lancé un appel à tous les organisations des éleveurs ñu ñëw taxaw ci xeex bi jàppale sàmm yi ñoom Ismaïla Sow ñoom Aliou Dembrou ñoom Arouna Gara Diarra ñëpp ñu xam ne sàmm moo molo ñor nga wàcc terrain bi jàppale sàmm jàppale sàmm yi maa ngi lancé au président de la république bu dee mooy mooy dégg na wax ak son ministre d'état le maire de Fandène mu xam ne ñun mu xam ne ñun ay doomam lañu ay mbokkam lañu na ñëw toog waxtaan ak ñun ñu xool ñuy régler situation bii di lancer aussi un appel à chef de l'état surtout au monsieur le président de la république li ko dalee Mbour ba Thiès amul àll li ko dalee Thiès ba Tivaouane amul àll forêt bi kese kese kese moo fi des tey moom kese moo fi des te sàmm yi du ñu yëg du ñu du nag yi du leen yóbbu ci asamaan bi si kaw suuf si lañu nekk li des fii ci forêt bi li des fii ci forêt bi te mu te mu nekk diggante te mu te mu nekk diggante la base militaire bu Thiès la commune de Moralan la commune de Kër Mousso li fa nekk li li fa des ci foore bi nañu dimbali ngir yàlla ñu jox ko sàmm yi comme ni mu def la rage de Doli ndax Thiès amatul àll ñu jox ko sàmm yi sàmm yi def si ndox. nekk pour ñu mën a nekk fii en toute tranquillité ay lotissement lañ lañ fi bëgg a ay kër waaw dagg nañ fi dagg nañ fi 40 hectares barki dem ñaa fi ñaan nañ fi nee nañ dañuy dañuy dañuy losi li fi desoon loolu nag duñ ko nangu teg duñ nangu duñ ko nangu leen ah Ila Ndar bi moo ngi jaar génnaaw fii côté côté côté Morlan ab ah, ab ah, ah, ci biir Morlan lay jaar route route base militaire baa ngi nii tool yaa ngi nii lii kese lañ fi am forêt bi kese kese moo fi nekk tey te coow nag dalal pël lugus fulum njaay bopp caawun morola poñen ñëpp seen nag fii fii forêt bi lañ nekk amuñ fu ñu leen yóbbu fudul fii te duñ leen yenu duñ leen yóbbu ci asmaan bi waaw cur gi fii fii fii lañ fii lañ bokk cur gi fii lañ bokk ci Sénégal lu tax lu tax Sénégal duñu daggal jur gi suuf si mu nekk fi ñu war a sàmm lu tax loolu man daal li may wax nañu jóg taxaw li ñu rek la situation bi ñun nag bañu ci dara bàyyi ci dara de ses nañ ci maire bi nag maa ngi lancé un appel à monsieur le kii le maire de Fandène ñun sis nañ ci maire bi ses nañ ci maire bi nag saa bu ñu fippoo nag ñëpp dañ xam ne ñun fipp nañ man damay wax ne rek ñun fii la ñu juddoo ci Sinthiou Kéba fekk ci suñu papa yi fekk ci suñu maam yi ñu ànd ak ñoom fii ñuy sàmm ba ñoo ñu dem bay ñu fii ñuy sàmm xam nga bi ñu juddoo ba léegi rek yàggaan bu ñu waxee ne tey démb la ñu ñëw wala leneen bu ñu buggee tey di ñëw ñu ne dañuy dàgg fii bàyyi ñu rek loolu duñ nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg di jël nañu décision kooku bëgg nangu ci suñu loxo dinañu xeex ndax ñun xamuñu lu dul àll bi du ñun ñoo ko sàmm depuis ñun bu ñu juddoo ba léegi ñun ñoo sàmm àll bi ñu musuñu gis keneen ku sànc dëkk bi ku sànc ci bi benn pan bu ñu wax Ousmane Wuuri ñooñu ñoo sànc ci dëkk bi ak Siré ak ak ak Siré Dia Siré Ba ak ak ak Adama Sow ak ak ak ak ak ak kii Sidika ñoom ñoo lañu ñooñu ñoo nekkoon fii suñu maam yi ñoom ñu nekk ëpp na téeméeri at ñooñu ñooñu ëpp nañu téeméeri at ndax nee nañu depuis temps colonial fii la leen fekk temps colonial du tey ñun def nañu fi teen bi ñuy kii ñoo ñoom ñoo ko suul na suñu naaj yi amatuñu fu ñu naan suñu saret yi la ñuy def ñe yenn yu yi la ñuy def di jënd ndox pour ñu jox seen naaj yi naan ñoom ñoo ñoom ñoo suul suñu déeg suul suul suñu suul suñu teen amuñu lenn fu ñuy naanee suñu naaj yi waaw ñun ñoo ngi fii ñeneen ñi ci robinet la ñuy naanee loolu moo fekkoo leen si yeneen naaj yi dañuy dem di rang robinet di fay seen naaj yi di naan loolu jaaduwul di Macky Sall ne xam naa ne ñun ci dëkk bi lañ dëkk dëkk bi lañ dëkk nu mu def ba muy ay forage ñaan nañ ko ñoon nu mu def ba may forage ay ay fii ak dolli mun nañu def noonu may ñu fii benn forage ñuy naanal suñu naaj yi ndax ñu naa yi bi la ñu dëkk. waaw loolu laa amoon euh, tout le monde moi je m'appelle euh, Adama Kar donc euh, je suis un habitant de de Thionapel. comme vous l'avez constaté euh, nous sommes là aujourd'hui vraiment pour dénoncer l'accaparement des terres dans cette zone jadis considérée comme forêt classée. Comme vous le savez et comme vous l'avez constaté, vous avez vu tous ces gens derrière moi. en a d'autres qui ne sont pas là et vraiment, il était prévu qu'ils soient là aujourd'hui. Parce que l'élevage est aujourd'hui menacé à Tchonach, faute de, faute de terre. La terre que nous, avons réservée nos, grands-parents a été morcelée et aussi de manière abusive, on peut dire, par le maire de, de il faut qu'on cite son nom. N'est-ce pas, la commune de Fandé. Nous, on, a fait nos premiers pas ici à, à, à cette zone. Depuis qu'on qu jeune, on a grandi ici. on a tout fait ici. Donc on ne peut pas comprendre du jour au lendemain qu'on vient pour nous dire que cette zone-là, ça appartient à la mairie de Fandette. Ça, c'est incompréhensible. Oui nous ne voulons pas vraiment la guerre. Qu'est-ce tout ce qu'on veut, c'est de, de s'asseoir autour d'une table avec la mairie de Fandel pour vraiment pouvoir discuter des solutions vraiment qui peuvent se présenter. Parce que vraiment, l'élevage est menacé, les éleveurs sont en danger. Ça aussi, il faut qu'on le dise, Donc, comme l'a dit mon grand frère tout à l'heure, nous lançons un appel à toutes les autorités compétentes les autorités thiessois, les autorités au niveau national. Nous lançons un appel au président de la République d'intervenir avant que ça soit trop tard. Le gouverneur de Thiès, toutes les autorités compétentes qui sont ici au niveau de la région sont interpellées dans cette situation. Comme on a l'habitude de le dire, il faut soigner la, la plaie avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, si la situation se dégénère, vraiment, ça risque d'être incontrôlable parce que les vraiment en colère. ils sont en colère, ils sont là. Comme, euh, l'a souligné tout mon grand frère, nous n'allons pas vandaliser les, euh, euh, euh Nous n'allons pas brûler des pneus. Mais nous allons faire une marche pacifique pour le moment. Nous allons faire un sitting vraiment pour alerter l'opinion, l'opinion nationale et l'opinion internationale. Si maintenant aucune réponse ne nous a été servie, Inch'Allah, vous allez nous entendre dans les plus brefs délais et nous allons passer à la